la jógee. ay dara karaara waaw waaw. macha allah. ndeysaan moom ñëpp la bëgg. amu xaj ak seen. ñëpp la bëgg. xala nawloo. waaye jibi. mani. eh. dooley jigéen góor dooley saxaar raay. ñëwal. alaaji Amadou Kora yal na yàlla guddal sa fan. sanu baay bi yal na yàlla guddal sa lu mbaalo mën yaa ko ko mën loo. lu mbaalo doy yaa ko ko doyloo. yaa jàppale mbaalo. Wow. sa jabar gi Wow. Wow. Wow. di nga Wow. ak Wow. Wow. Wow. Wow. dafa dem Wow. ñu ne ko Wow. dame Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. ko Wow. rek Wow. Wow. Wow. mu ne ma Wow. man Wow. Wow. Wow. dame ba sama Wow. tom ngi ni taxaw Wow. Wow. Wow. tom Wow. ngi ni Wow. tom Wow. ngi Wow. king king ñowal king ñowal jibi ñowal ci king Wow. Wow. Wow. Wow. la Wow. Wow. yeye Kora <laughs> my daddy sarani jali mania abekina chebalu maka ala de <laughs> be chebalu silandombe waaw waaw ala jama du Kora ala jaba minafle ya jaba sarabe kina chebalu gangele waaw waaw mama chéri ba Jóob lakk nga dëkk bi fi nga jaar wala li nga def maalo namu mama ah adam di ba ah eh. bëgg maalo ba mu ciir sama baay baa ngi sama baay di chéri Mballo Dabo millionnaire bi jëm bi yow ay amama ah, ah waaw waaw waaw waaw naam mama ah Oulaye ah. ah. Signane gis nga sa nit ki Oulaye gis nga ni Mballo def naam Binta Cissé gis ngeen li ay eh awak Adama Konté gis ngeen si macha namu mama ah alaji Musa de ah alaji Musa laaw la cat laaw la cat ajaratu jay na ba daaba yegsi na caat yegsi na lagare seeri Aboubacar Diadio yegsi na doomi ndeyu mbaala daabo laaw la cat laaw la cat laaw la cat laaw la cat laaw la cat laaw la cat ci sama ji xoolal lii xoolal lii xoole lii rakk ji bëgg magam waaw waaw la ilaha illallah e yako e yako waaw waaw mamay sabari sirami wolola dabola Eh mama dudiya israel oye muganye dumana boya sirado ah. ima bintu sojo lenye wa sokulo xool leen lii xool leen lii ay millions de dollars lay jar wow, wow. Wow, waaw woman of mana? xaat woman big woman big man jeeg bu am personnalité bu am dignité bi lula. la lew la am jom am fulla am fayda jàng diplômé yor say société am boo sa tubaab bi Adam Diba ngi nii taxaw ay eh, Adama Diba tabar fakal la macha allah moo yor société bi ñëwal nga jël sa rakk ji nag te ko ci sa biir xol muy rakk ju neex a rakkoo eh, muy xale bu neex a bëgg muy xale bu bëgg magam di xale bu am jom di xale bu teral ndeyam di xale bu sagal ndeyam séeré Aboubacar Diadio yal na leen yàlla la fal cat nga ñëw nag sunu kilifa gii nga xam ne loo mës a xewle Siyaton Gàmbi ñëwal Djiby Dramé ñëwal keroog ba ñuy ceet ñëwal sama doom ju jigéen ja ñëwal nii la mbaalo daa ba defoon taxaw baax na ñëpp taxaw keroog la ñu takk àlluwe yi ñëwal mbaalo deful dara de deful dara subaana ma keroog ba ñu takkee àlluwe yi mu nuroo la ko gay na ba ñu sol yu xonq ya ndeysaan booba sinaa jibagul jibagul boba dara jibagul bu jibon ngeen gis lu ne keroog dañoo jiital sañu ñi jaay ji Alaaji Mooro ba muy nit ku baax ki muy nit ku yiw Alaaji Amadou Koora kenn du yow li ana tak ak nana tak katu ori genn leen dootu leen ko defati tak kat ngi da ngeen di jaayu tak or tak kat ngi ni wuyu leen li Abubakar Wulaay Jaaju am nga fanta yaay ndeyam fanta yaay yaayam fanta yaa jur Jaynaba mbaalu jur laam waaye yaay ndeyam